leen seen bët àddina bi metti na àddina bi wecceeku na waratuñu nangu kenn benn doomu adama buy ñëw taxaw di ñu fooye wala muy ñëw taxaw di lekk di ñu ruubee alal du fi ñëw ñu am fu ñu ko jaarale waratuñu nangu nit taxaw ak dayoo bu mën a am ñu yaakaar ne moom la fekk na ñii nga xam ne dañuy ñëw tolloog population bi suufeel seen bopp ànd ak xale yi ñii lañu war a mën a ànd jël teg leen suñu kanam ndax ëllëg ñu ñome leen ku tegu foo warul tegu ñu ne la ah yaa ngi wàcc challenge la pacte la entre vous et la jeunesse entre vous femmes dama bëgg nga promettre leen ce que vous allez faire de notre mairie demain ce que vous allez faire de notre commune demain et je pense que fii tey ku fi jóge dafa jóge avec l'espoir comme je disais tantôt le candidat de l'espoir voilà le candidat de l'espoir tàccu leen ko te maa ngi ñaan yàlla ah ma dellu nag tuuti si cosaan si barke Cheikhna Cheikh Sadou Abi barke maam borom Touba barke maam El Hadj Malick képp koo xam ne yàlla sédd nañ ko si Sénégal yàlla la yàlla jàppale. ah ni ma dugg seen nag noonu rek laay dugg seen su may dugg ñi ma àndal noonu ñooy samay mbokk ñoo ma xam waaye tey man réew mi le parti de Idrissa Seck. Je suis le coordinateur de Japan Berkeley. Je m'engage à investir le candidat Birame Ngom. waa Jëppal Derklé Kassor. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais une minute de silence pour rendre hommage à nos deux anciens maires Salif Mbaye et kii euh, Kamija Abdoulaye Faye Salif Mbaye Abdoulaye Mesdames et messieurs, les responsables des entités de la coalition, personnalités et dignitaires de Dieuppeul-Derklé, autorités culturelles tous à vos titres et grades respectifs. C'est avec beaucoup d'émotion que je prenne la parole devant cette illustre assemblée. Je tenais à remercier tous les intervenants et responsables politiques d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne. Après multiples rencontres et réflexions, nous avons décidé de mettre sur pied une coalition dénommée Liggéey Suñu Dëkk. Mes chers camarades, c'est un grand honneur que j'accepte votre choix à l'élection locale de janvier 2022. Notre slogan porte sur un seul mot simple, de sens. le changement. Oui, oui, oui, Keppel Derklé a décidé de respirer un nouveau climat qui aspire au développement local. Donc la coalition And Liggéey Suñu Dëkk est dans l'obligation d'écouter vos cris de cœur, de transformer vos inquiétudes en quiétudes et vos rêves en réalité. Notre défi est de sauvegarder notre maison communale qui inclut la préoccupation d'unir la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. Femmes et jeunesse, je de votre dévouement à à nos jours, j'ai jamais cessé de travailler sur une bonne orientation sociétale de la localité, basée tout sur deux volets fondamentaux. L'employabilité des jeunes et l'autonomisation des femmes. Nous resterons toujours dans ce credo pour la bonne marche de notre commune Dieuppeul-Derklé. Mesdames et messieurs, je fais appel à toutes les forces vives de la localité à venir nous rejoindre dans ce combat noble. Une autre de l'histoire est en train de s'ouvrir et toute idée féconde serait la bienvenue. Nous sommes en marche pour une démarche participative inclusive, en marche pour une synergie, en marche pour des femmes entreprenantes et autonomes, En marche pour une jeunesse déterminée et avertie. En marche pour une commune prospère et paisible. ànd liggéey suñu dëkk sera et jamais las. Merci à toutes et à tous. Jërëjëf. J'accepte d'être votre candidat et Inch'Allah, nous participons pour gagner. Merci à tous. Merci. Castor, Liberté 5. BEC Liberté 3 Bassos euh, tey euh, samay nawle ñi ànd ak man tey tànn nañ ma pour ma nekk seen candidat accepté naa ànd nawle la ñu ànd incha allah gagnandoo ensemble ñu gérer ensemble pour intérêt commune bi jërë ngeen jëf merci.